أعوذ بالله السميع العليم من إبليس الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بك جلدي بك mbokki ginnaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonentem bu tedd bi sallallahu taala alayhi wa ñu dellusi ci seen waxtaanu jaar-jaari mag ñi mag ñi nga xam ne ñoo àndoon ak Serigne ñooy mag ñi nga xam ne ñoom la Serigne Touba Cheikhul Khadim doon wax saxaaba yi ñooy seen bàyyi ci diine kon bu ngeen di roy roy leen njàmbaaruk saxaaba yi mag ñooñu doon ñu Serigne Touba cheikhul Xaddim gërëm ba tax mu jox leen garaat bu nekk ci garaati wilaaya yi ñu ëpp ci ñoom mu def leen li ñuy wax seexal boole leen ak mbooloo mu mel ne seexal googu tamit niroo naag gi nga xam ne moom la cheikh ahmad badawi daan def ca Tantawi ca Égypte ca réewu misra ndax dañ naan ci tasawuf bokk na ci sëriñ si njëkka a gàmm wala màggal woote ko annuel ñu fay daje at mu jot mu mel ne bu ñuy nettali histoire Cheikh Ahmad Badawi moomu dañ naan bi mu ñëwee Misra Égypte ba yéeg ca taax moomu ba xaalam jooju dikkal ko nga xam ne day fixé benn bët bi ci asamaan si ba jant bi somm continué noonu bu ko defee lu ma weer bu wàccee ñu jox ko liir yi kenn ku ne indi sa doom ngir mu ñaanal ko nee ñu bu ko ñaanalee tëbb ko leer sol ci moom wilaaya def ko nitu yàlla bu màggee mu yabal ko ci benn dëkk boo xam ne moom lay toj ne fa di jaamu yàlla di jàngale lislaam ba faatu ñu denc ko fa mu def ko ñu baree bari ca seenug liir mu mel ne loolu xeet la ci seexal gi Sëriñ Tuubaa defoon mag ñi muy tasaare leen ci gox yi ci Sénégal ngir ñu représenté yonent bi ali salatu wasalaam ngir ñu taxawal l'islam def nit ñi ay julit ñuy julli di jaamu borom bi subhanahu wa taala mu nyonye mak ñoñe gen kenn lañ ca genn tay bëgg waxtane lenn ci ak dundam muy Cheikh Abdul Karim Touré di kenn ci magi Serigne toubay Serigne Abdul Karim Touré momu mi ngi feñ at mu ñi wax 1871 ci milaa milaadi mu mel ne ci dëkk bi ñuy wax Makka Touré waaye juróomu góor di sëriñ Moxtaar Touré waaye juróomu jigéen di soxna Mariama ture mu doon ku baax bawoo ci ñu baax nee ñu sëriñ bi newoon na ko sama mutu fa de am na fukki bant yu góor fukki bant yu góor fukki doom yu góor ak ñeent ñu jigéen ñi ñaar rekk ñoo ci doonut wàlliw ñu jigéen ñi ñaar rekk ñoo ci doonut wàlliw te seenu mbaax wecci na wilaaya ne ko seenu mbaax wecci na wilaaya nee nañu it sëriñ bi daana ko wax ne ñu yàgg ci lislaam ngeen ñu yàgg ci lislaam ngeen mooy seenu askan bul bokk bul bokk ci ci fere yi nga xam ne dañuy yàq lislaam sëriñ bi mas na ko ne santal yàlla mu ne alhamdulillah ñetti yoon mu ne ko sa jenn jëf mësta sa jenn jëf mësta loolu di lu jafe jafe jafe jullit buy jaamu yàlla ci àdduna ak shaytan ni mu bare doole muso def jëf ju neen jëf joo mas a def sunu borom nangu ko serigne touba ne ko sa jenn jëf musta neen loo mas a def rek sa borom nangu na ko te jenn jëf ju ñu nangu rek doy na Sëriñ Abdou Karim Touré ndax ndaxte serigne Abdou Karim Touré bu ñu ko xoolee mbokk la ci serigne bi mbokk la ci serigne touba ndax Ahmadou Bus Ahmadou Soxna ak Saïd Soxna Bousso ñoo bokk lépp Soxna Bousso ak Saïd Soxna Bousso ñoo bokk lépp Ahmadou Soxna Bousso moo jur maam Asta mi jur maam Jaara Bousso mi way juru Cheikhul Xadim Saïd Soxna Bousso moo jur Aminta Jëmmu mi jur sa Njaay mi jur maram ndiir mi way juru sëriñ Abdou Karim Touré ba mu tolloo ci waxtu jàng alquran ku ñuy wax maam guuña moo ko dalal mi ngi jébbaloo ci sëriñ Touba mi ngi jébbaloo ci sëriñ bi ci Mbàkke Baari Mbàkke Baari Jolof nee nañ ci la jébbaloo ci sëriñ Touba nee ñu bi mu jébbaloo ay mbokkam jël si nañ ko ñaari yoon ba ko ñetteel sëriñ bi ne leen bàyyi leen ko fi ànd ak man du tee xam li nga war a xam du tee amit li nga war a am mi ngi tarbiyewoo ci dëkk yi Touba gànnaar ca Mauritanie ceen Jolof njaareem ci dëkk yi ñeenti dëkk yi wala juróom dañ ne ci la tarbiyawu nee na moom sëriñ Abdou Karim nee na takk na laxasaayam fukki at ak ñett ak genn wàll yoo xam ne mosu cee tàggoog njàpp mosu cee faat waxtu mosu cee tàggoog njàpp mosu cee faat waxtu te loola kat dafay tegtale ak njàmbaar ak mag ñi jege gi ñu sëriñ woon ak xam gi ko xamoon teewu doon ñu fonkoon lislaam fonkoon diine mësuñu ko sàggane jàmbaare woon lool ci topp yàlla mi ngi yeewu ko ci njaareem sëriñ bi yeewi na ko ñaari yoon ba ko ñetteel mu ne ko saa boroom mayetuma ma liggéey loola woo cheikh mohamadul moustapha karim ak cheikh ma sàmba Diop Sam ak ñu bari ci mag ñi ne ko li may dikkal mën naa la cee yaatal ba mu mel ne yaa ko moom waaye dama lay defal lu gën loolu ñooñu ñuy wax seex ñooñu ñuy wax seex ci laa la boole daal koy booleek maam Moodu Aminta mu mu sant ko ba Màkka Ture ba mu demee bokk yépp jébbalu ci moom mu nekk fa ba ni mu sance ba nu mu sance euh, baa ko jéeme ca seen euh, jóge fa dem tànneeful jóge fa dem gosaas jóge fa dem kër kër ñile jóge fa dem fu ñuy wax Kamadu tudde ko Bushra Kamadu googu moom la tudde Bushra jóge fa dem Kelewtew jóge fa dem jóge fa dem Thion jóge fa dem Touba Saloum dëkkub sëriñ Bachiru moom sëriñ bi jullit xaqan la woon moom Serigne Abdou Karim Touré di taalube bu sëriñ bi bu sëriñ bi nangul ak taalubeem muy li gën jafe taalube la woon bu sëriñ Tuubaa nangul ak taalubeem gërëm ko seexal ko mu jeexal dundam gépp ci jàng alquran ak tudd yàlla ci kurusam ak waxtaan ak doomu aadama yi ci lu leen di jariñ lu leen di jariñ tey ak ëllëg ku bari woon lu muy waxtaane sëriñ bi la ndax sëriñ bi moo ko ko digaloon moo tax sëriñ Shuaybu Mbàkke ibnu Cheikhul Xadim nee ñu daana ko faral di jëli mu koy waxtaanal ci sëriñ bi bu guddi gu soree mu digle ñu delloo ko bokk na ci ay ngëneelam moom sëriñ Abdou Karim Touré sëriñ bi nee na naa Jibril bu daa ñëw ci moom aw meloom la daa yor naa Jibril bu daan ñëw ci sëriñ Tuubaa melow sëriñ Abdou Karim Touré lay yor loolu tamit li muy màndargaal mooy mag ñi ci seen bopp roy gi ñu royoon saxaaba yi loola lay tegtale ndaxte yonent bi alayhi salaatu wasalaam sayduna jibril bu daan ñëw léeg-léeg kenn ci meloy saxaaba yi lay yor ku mel ni ne dexyatul kalbiya ku siiw la ci ndaxte nee ñu benn bis nekk na ak aïchatu di sangu bi ñu jógee xazwatu bani xazwatu bani nee ñu aïchatu nee na dañoo toog ba mu yàgg mu génn ab diir bu yàgg ma génn di ko xool seen ku mu sóonu ci aw fas moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam di am ku muy waxal ca kaw fas wa ba mu waxee ba pare ñëw ma ne ko mu ne ma ma ne ko foo ne woon ki nga taxawaloon kum doon mu ne ma koo ko teg ma ne ko dexeetul kalbiya de laa ko teg mu ne ma du dexeetul kalbiya naa jibril la dafa tashakkul meloo dexeetul kalbiya waaye Seydina Jibril alayhi salaam la ginnaaw bi laaj na ko saxaaba yi ne leen amul ku jaar fii léegi aku fas ñu ne aha kay mu ne leen comme doon ñu ne ko dexetul kalbi da leen nirool mu ne déedéet Jibril la dafay dikk di ma wax ne sa borom nee na teg nga ngànnaay yi waaye malaaka yi teguñu seeni i ngànnaay bu kenn jullee takkusaan ci lu dul waa waadi bani Quraydata ñu fabuwaat ñoom saxaaba yi dem ca bani quraydata ndax yahud la ñu dëkkoon madinatul munawara te bokkoon nañ ci ñuy wor yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu dem songu leen rey ci 90 keroog sayidna ali ak zubair ibn al awam ñoo doon dagg bopp yi di leen rey ginnaaw bañ leen jàppee bàyyi gone ya ak jigéen ña waaye rey góor ñu mag ña ngir dañoo waroon yàlla akub yonentem ca xëndax euh, mu mel kon saxaaba yi rekk la mag ñooñu di misaal dañoo taxaw taxawaayub saxaaba yi di liggéey liggéey ba saxaabatul kiram daan liggéey muy fonk yàlla akub yonentam fonk lislaam fonk diine fonk taqoog njàpp magi Serigne tubaay yi muy ñii toppoon Serigne Touba wi at baaxul xadim kadalika tuddoon ay cheikh ba Serigne Touba jox leen garaatu seex ñoom it noonu lañ meloon doon liggéey liggéey yu meloon yu mel noonu moom nag Serigne Abdou Karim Touré ku amoon taxawaay la bu dee sifaam meloom ci ñun ñu fekkiwut jamonoom bindkat yi dañ naan ku amoon taxawaay la ku xeesoon la nekkuloon ku ñuul kadalika te góore yu lool mooy taaru woon lool nekkoon na ku fonk jublu xibla te loolu bokk na ci sunnas yonent bi alayhi salatu wassalam to jublu peng ndax am na kenn ci nit yàlla yi neñu ñu ko toogoon ci jàkka tàllal ay tànkam kaduk asamaan dikk wax ak moom ne ko xanaa euh, mag sax booy toog ak moom da bank say tànk waxuma la jëmm ju tedd ju toll ne borom bi subhanahu wa taala ngay toog ak moom di tàllal say tànk mu daal di am kersa bank ay tànkam ndaxte ñoom teggin yi gën a sew moom lañ daan sàmmoonteel dawuñu bàyyi benn teggiin ñoom nitu yàlla yi ñoom nitu tasawu fii kon bokkoon na ci ay mandargaam yi ñu ko daan xàmmee mooy waxtu mu toogee xibla lay jublu te loolu adab la ay teggin la yoo xam ne ci sëriñam ba wasilaam doxoon digganteem ak boroomam di sëriñ Tuubaa Seexul Xadim ca la ko jànge teggin yooyu ca moom la ko jëlee mooy toog jublu xibla aada woon ci Serigne Touba li ëpp ci melow toogaayam mooy ferankulaay ferankulaay tabarro bokkoon na ci li ëppoon ci melow toogaayam melawuñu melaw toogaay wu ñu tàgg la wu sant la tamit bokkoon na ci ay melokaanam yi ñu koy xàmmee ku fonkoon kaala la te loolu ci meloy sufiyanke yi la meloy nitu yàlla yi la ndax dañu daan muur seen bopp fu ñu toll bu daaree da daa muñ waaye dawut xaqataay ba gémmiñam fees te loolu ku ne xam ne ne sunna si yonent bi alayhi salaatu wasalaam la mëstaree ba kekku waaye bu daan ree day muuñ ba sanaayaaya bañ feeñ waaye dawul ree ba kekku li ëppoon ci li ëppoon ci colam muy yére yim daan sol mooy lu weex te ku ne xam na ne xadis rot na setu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na seenu col day leen ko def lu weex ndax seeni néew kat lu weex lañ leen di sànge muy perkaal te col gu weex bokkoon na ci colu niti tasawuf fii colu niti yàlla yi ku amoon kàddu la tamit ku amoon fasaaxa la bu ma saan wax rek kenn du ko nattable ku amoon fasaaxa la bu masaa saa wax dee sut laaj ku wax ñépp a xàmmee woon kàddoom ngir am gum amoon fasaaxa te loolu dafay tegtale melo yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak saxaaba yi li ma waxoon ne magi Sëriñ Tuubaa yi wala seex si ñoom ñépp kenn ku ci nekk saw melo am nga melo woo xam ne day jëmmal meloy saxaaba yi nga xam ne ñoo àndoon ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni ki Abu Bakar Omar Othman Ali ibn Abi Talib ak ñu mel ne ñoom bokkoon na ci meloy Serigne Abdou Karim Touré ku lewet la woon loolu jikkoy yonent bi alayhi salaatu wasalaam jikkoy sëriñam ba la ndax da koo roye ci moom ndax moo ko tarbiya te tarbiya dañ ne mooy jàngale jëf ki nga taqool bu yàggee nga mel ne moom Serigne Touba leen yaroon kon ci lewet googu sëriñ Abdou Karim Touré ku lewet la woon te bari yërmande ci mbindeef yi te loolu tamit jikkoy sëriñ Tuubaa la woon sëriñ Tuubaa ku bari woon yërmande la woon ci mbindeef yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak i saxaabaam kadalika ñu bari woon yërmande lañ te loola sunna la soo xam ne daf ko roye ci ñoom ku fonkoon ak mbokk la te loolu tamit kadalika bokk na ci liy tegtale jikko yi gën a rafet ci lislaam sëriñ Abdou Karim Touré ku fonkoon ak bokkam la te te daa ko toppatoo yëmut ci fonk rek waaye daana ko toppatoo di ko dox lu man ku yaatu la woon koo xam ne ku ko xam sopp ko euh, te doo ko mën a muñ soo ko xasee xam ba sopp ko dootoo mën a tàqalikoog moom dootoo ko mën a muñ ku tabe la woon tamit te loolu bokk na ci jikko yonent bi alayhi salaatu wasalaam muy tabe ndax daana toog ci min minbar bi di xutba ñu di ko jox ay hadaaya ay addiya di ko ko jox di ko ko jàll ba fi toog bu jógee du am fu jaar bu paree muy joxe di joxe ba du bu demee këram du cin du fa takk ndax soxna setu nee na daanañ toog lu mat ñetti fan wala ñetti weer séentu hilaal séentuwaat ko séentuwaat ko te cin du tàkk ci kër gi ñu ne ko lu ngeen daan dunde mu ne asawdaani ndox ak tàndarma képp lañ daan dunde sunna soos Sëriñ Tubaa Seexul Xadim kadalika roy na ko ca ndaxte bokkoon na ci ay meloom moom Daawud yaroon na taalibe bi ci xiif bu metti tajwiya xiifal leen ngir roy jikko yonenti bi alayhi salatu wassalam ku yaatu lawon ko xamne nima ko waxe ku ko xam sop ko to do ko meuna muñ ku tabe lawon deul deñ deul deñ ci dara deñ na dara euleuk ndax xamoon na ne al muridu man la yamlik wala yumlak comme ni ko Serigne Touba jangale murid moy ki nga xamne moomul dara te dara moomu ko soxla su teew day jël lam yor def ko ca xaar ëllëg waaye du dencal dara ëllëg ko loolu bokkoon na ci jikkoy Serigne Abdou Karim Touré lu mu am bokk koog jaam ñi lu mu am bokk koog jaami yàlla yi dawul dawul bot di wante loolu daw doonut woon jikkoom dawul mer tamit kadalika mi ngi làqu 1976 ci atum milaad yi ak dundam toll ci téeméer ak juróom-benn téeméeri at ak juróom-benn lépp mu jeexal ko ci lu neex boroomam di lu jafe-jafe gudd fan bapare sa dund gépp nga jeexal ko ci lu neex borom bi subhaanahu wa taala ndaxte loolu mooy dund gi gën baax ci dund yi mooy dund gi gën a texe ci dund yi gudd fan booleeg sa dund gépp nga jeexal ko ci yoonu yàlla mosu sàggane dara ci xàq sunu borom subhanahu wa taala lu toll ne tarafatal ayni am na ay xasida yoo xam ne way na ko Sëriñ Tuubaa ñi ko waroon daanaka ñépp jàngoon ba géeju ci xam-xam ba mënoon taalif am na ci yoo xam ne am na ci lenn dañu koy euh, toppalu nee nañ am na ci yoo xam ne xasida yoo xam dañ koy toppalu te pareegut am na ci yoo xam ne bu paree bu soobee yàlla dinañ ko móol mbokk yi jot ci lii mooy li nga xam ne moom lañ tënkoon ci dund Serigne Abdou Karim Touré di kenn ci mbokk yi nga xam ne ñoo àndoon ak sëriñ Touba Cheikhoul Khadim joxoon ko seen bopp yaakaaroon ko tey ak ëllëg doxale ko seen diggante digganteeg yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñuy wasila ci muy seen wasila kon sëriñ Abdou Karim moomu lañu dikkoon ngir waxtaane lenn euh, ci ak dundam lu néew a néew kon mbokki jullit yi mbokki taalibe yu ñuy topp ci sunu sit murit point info ngir waxtaane dunduk mag ñi ak seeni jaar-jaar mag yi nga xam ne ñoo àndoon ak Serigne Touba Cheikhul Khadim ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp